yow sama mbokk jullit kaay ñu jël ndenkaane bi ñu njëriñoo ko al imaam abdullahi ibnu awn rahimahullahu taala dafay wax mu ne salaasun uhibbuhunna li nafsi wa li ixwaani haadihi sunnatu an yataallamuuha wa yasaluu anha walqur'aanu an yatafahamuuhu wa yasaluu anhu wa yadacu nnaasa illa min xayrin al imaam abdullah ibnu awn rahimahullah bokk si kenn si taabiin yi muy wax mu ne ñetti mbir yi kat dama kaa bëggal sama bopp waaye itam dama kaa bëggal samay mbokk jullit bi si jiitu moom mooy sunna yin sa salam ñu jéem koo jàng jéem koo xam jéem koo jëfee lépp loo xam ne xamuñu ko ñu koy laajte waaye itam quraan bi ñu jéem ko comprendre ñu jéem ko xam di ko settantal waaye itam lépp loo xam ne xamuñu ko ci quran bi ñu jéem ko làcce noonu itam nit ñi seeni problème ak seeni yitte ak seeni wax ak seeni taxawaay ñu bàyyee ko ak ñoom lu dul loo xam ne dañaa xam ne kat lii yiw la bu jëm si ñoom ñu wax si yiw boobu ñu jëf si yiw boobu waaye itam ñu taxawee yiw boobu ndaxte kat yiw boobu daf leen di njëriñ njëriñ ñu loolu nekk ndenkaane yoo xam ne yu ama am solo mën nañ ko njëriñoo ñun ñëpp